dal leen ak jàmm leen di jox xibaar yi wér te wóor dalleen ak jàmm mbokki internet yu AGT News tey dafa am benn compilation de vidéo boo xam ne moom lañ fas yéene def boole ko ak jàngat jàngat boo xam ne day ànd ak comparaison par rapport ak situation bi nga xam ne moo xew ci dëkk bi abonné leen ci chaîne bile ngir saa su na ngeen di am ay xibaar ki jàngat yu wér te dañ koy tàmbalee ci kenn koo xam ne ñëpp ràññee nañ ko fii ci Sénégal am mbir mu ko fi daloon boo xam ne flagrant la flagrant délit te ba tey jii mi ngi doxi ay soxlaam contrairement aux autres qui sont en prison nga xam ne li waral ñu téye leen fa waa ji li mu def moo ko gën a garaaw foofu ñu teewlu ko AGT News. ko gën a mag nañ leen di jaaxal ah, jërë leen ko a doxalee la. dama dama ragal ma fii fii fii ak suma bakkanu njaboot ak suma bakkanu doom lii rek moo newoon si oto bi lii lii rek moo newoon ci oto bi te man dañ ma ko jox dañ ma ko dañ ma ko dañ ma ko dañ ma ko jox waaw sëriñ baax baax ku la ko joxoon ku la ko joxoon kan bi moom dafa voyage sax wallaay dafa voyage man dafa ma ko jox bu yëngatu sinon affaire seere bu ne ma grand grand yow li ci li ngeen di ah, ah, arrange waaw grand nañ ko géré dañ koy géré bàyyi bu ñu eggee fan fan lañ koy géré bàyyi bu ñu eggee fale brigade waaw non foofu day doy waar ah doy waar ndax lan foofu day doy waar oh, dañu dem fii fii mbedd bii nii ah? non wax leen ma doxalee mënu muy demee rek ma géré ko léegi non bàyyi ah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 Eh AGT News kooku Bougazeli la ñëpp xàmmee nañu ko moom lañ fi jàppoon ci lu ñeel wàllum foo billet bañ ko ci jàppee nag moom ci boppam sax reconnaître na ni dugg na ci ab guuta gum xamul fan la koy waxe waaye guuta googu yàggu ci ndax ñëpp gis nañ ne génn na ca kaso ba bu yàgg mi ngi doxi ay soxlaam nekk ci libertéem comme si mosul def lenn loo xam ne dafay indil jafe-jafe suñu économie wu biir réew moom Bougazelli mile lii mu daal di def bu fekkonte ne ku nekk ci opposition bi la mën nañ jàpp ne ba tey jii dafay nekk di croupir en prison ndax dañuy jàpp ne lu doy waar la daal di def te noonu sax la fa demee kon warul bokk ci ñi nga xam ne ñooy nekk en liberté liberté di doxi seen ay soxla di jëflante ak seen ay mbokk nekk ci jàmm ak ci salaam kon nag bu Ousmane Sonko ak waa opposition bi taxawee naan ni ñuy téye nit ñi ci prison dafa nekk lu arbitraire lii benn la ci ay exemple am na ñeneen yoo xam ni téye nañ leen tey ci kaso bi dara waralu ko lu dul ay kaddu yoo xam ne dañ koy jote yëkkati ñu naan appel à l'insurrection la ñii di woote woone loolee faat bakkenu doomu aadama lañ ci jublu alors que fii ci réew mi ci Sénégal am na ko fi mës a ay kaddu jëmale ko directement ci Ousmane sonk yokku te ba tey jii mi ngi doxi ay soxlaam nañ ko teewlu moom itam AGT News. man Amath Suzanne Camara nëbbatuwuma pare naa pour joxe sama bakkan pour Macky la pare naa pour joxe sama bakkan pour la République du Sénégal te damay wax ne Ousmane Sonko tant que mu ngi dund Sénégal Sénégal du am jàmm Ousmane Sonko ku ñu war a rey la parce que moom rey moo nekk ci ci xel mi. nit ñi waaw kon kooku duñ ko rey benn yoon mu jeex AGT News ko déggandoo moom Ahmed Suzanne kamara yëkkati yooyu la kàddu jëmale ko directement ci Ousmane Sonko ni dafa nekk koo xam ne baaxul ci société bi dañ ko fee war a jëlee moom itam ba tey jii mi ngi doxi ay soxlaam amul lenn loo xam ne jël nañ ko comme act teg ko ci kawam te moom ci boppam itam waxoon na ci lu ñeel Didier Badji ak Fulbert Sambou ci seen disparition waaye ba tey moom itam mu ngi dem ak dikk sans pour autant mu am ci benn jafe-jafe te loolee moo waral sax mu dem ci yeneen ay plateau yëkkati ay kàddu yu gën a doy waar encore le moo waral ca Seneweb mu yëkkati woon fa yile kàddu AGT News. dem leen songu këram dem leen songu ay këram ñu mu àndal ak taal. këram taal ak ñi mu àndal. mais yow li ngay def nii. dañuy Ousmane taal leen ko. ah subhanallah taal leen boo leen ko fa fekkee ngeen taalaale. Amath Suzanne boo leen fa fekk ngeen taal. AGT News. doy na waar ci réew mu ñuy woowee Sénégal ñuy gis yenn comportement yi lee te du am kenn ku koy dal di punir alors que ñeneen ñi ngi ci biir kaso bi ñoom Abdou Karim Gueye ñoom Cheikh Omar Diagne nit dof Fadilou Keita ak ñu bëree bëri ñoo xam ne dañ leen a arrêté ci lu ñeel manifestation yi amoon diggante bi Ousmane Sonko doon COSEM ak ma Mbaye Niang loolee lépp bu buñ ko xoolee comparer ko ak ñii fi jot a jàll léegi da ngay xam ne kat mbir mi li opposition bi di jooy naan justice tëddeewul njaaxaanaay dafay bëgg nekk dëgg loolu nag kenn moo ci mën dara muy l'état état bi nag kenn lañ teg ca bopp ba muy le président de la république Macky Sall bu dee nag yenn yu ni mel nii day am ci dëkk bi ñii di ko def nekk sa ay njegeñaale nekk ci sa wet amul benn sanction bu tegu ci seen kaw li muy jur mooy frustration li muy jur mooy mbañeel guy jóge ko ci population bi di ñëw ci yow li muy jur mooy population bu révolté wu di préparé wu nag di xool naka lay def ba élection yi di ñëw mu jëlee la fi bien vrai que ñëpp xam nañ ne président Macky Sall warul bokk ci élection présidentielle yu atum 2024 waaye nag population bi am nañ droit préparer sanction bi nga xam ni moom la ñuy teg ci kawam te du nekk lenn lu dul ca urne ya ñu def le tout ba moom ma ci Sall du nekkaat le président du Sénégal en 2024. waaye nag loolu lu mën a nekk la il faudra tout simplement ñu dem bindu ci ci liste électorale yi waaye nag daf ci am ñoo xam ni faaw ñu daal di leen bàyyi xel am na ci suñ sukkandikoo ci opposition bi chiffres yi nga xam ne daal dinañ koy joxe lu mat à peu cent à cinq cent jeunes yoo xam ni ñu ngi ci biir kaso yi dañ leen a arrêté ñooñu noonu. du ñàkk ne am na ci ñoo xam ne amuñu carte électeur wala seen carte ne peut pas voter moom moo ci nekk te ñoom war nañoo mën a bindu ci liste électorale yi nga xam ne tijji nañ ko te un mois dong lay daal di ñoo ñu noonu bu fekkente ne daan yi ñu leen daan mënu leen tere ñu nekk électeur kon ñoo ñu noonu ñëpp nañ leen dimbali xool ban moyen la ñuy jaaree même ba ci biir kaso yi ñu mën a bindu ci liste électorale yi bu dee en matière de droit am na benn fànn boo xam ne moo mayee mbir mu ni mel waaye nag bu dee amul benn issue bu ñu mën a jaar puisqu'ils sont en prison loolu dafay wane tey dëggal rek ni ñoom perte nañ li nga xam ni moo ñeel élection présidentielle atum 2024 duñ ci mën a voté waaye nag teewul ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ni ñu ngi gën a motiver ñi ci biti ndax ñoom seen ab arrestation ñu ci bëri dañ ko jàppee lu arbitraire jàppee ko loo xam ne mënul naa ñàkk ay nak comme te fii lañ ci toll ku ci nekk na nga fagaru te jéem a xool naka ngay def ba sa carte électeur mu nekk lu valable nga bokk ci liste yi atum 2024 nga mën a voté yu mel nag faw ñu koy punir ci am réew buñ ko deful moo jiite réew ma ci moom la ñuy sippi lépp moo tax frustration dafay juddu léeg te yu ni mel rek moom moo koy daal di indi ba tax na président Macky Sall bu ñu sañoon ñenn ñi koy jege te léeg-léeg ñuy yëkkati kàddu yoo xam ne justice daf cee war am yoon moom du ci daal di intervenir loolee lim koy jural nekkul lu baax kenn fàttewul kaawu Farba Ngom bam taxawee ci kanamu assemblée nationale di wax ak Mimi Touré naan am na ay koppar yoo xam ne maaka ka daan yóbbul man mii Farba Ngom man bu taxawee di wootewu éthique ak déontologie loolu du ñu safee ko waaye moom comme te daf di ab député mën nañ ne immunité parlementaire am moo koy sàmm bien vrai que li mu def noonu flagrant délit la waaye bu ñu fàtte Sénégal la ñu nekk Sénégal bi opposition bi di joy naan justice bi justice kumba am ndey la ak kumba amul ndey AGT News